alors jërë ngeen jëf mbokk euh, Mprod euh, ba ñu jotee l'information comme quoi que euh, la gare donc TER a été euh, saccagée et brûlée par les manifestants si lañ ñëw nag daal di def li nga xamante ni moom mooy la situation gis ngeen on a trouvé ici donc des débris on a trouvé ici li nga xamante ni moom mooy vraiment gare boo xam ne kenn xàmmeetu ko gis nga les guichets ak li nga xamante ni moom mooy tout ce qui était là ñi nga xam ne moom mooy les manifestants donc daal di nañ ko saccagé

ñëw nañ ba euh, daal di fay lii nga xam ne mooy lakk-lakk ñoo ko gisandoo mbokk yi gis ngeen situation yi la fii nag ku xam fii fii moo ne woon guichet bi fii la askan wi ne woon euh, pour jënd seen i ticket pour dugg euh, si li nga xam ne tamit mooy gare bi mais soo xoolee daanaka gis nga la situation yi la voilà gis ngeen mbokk yi la situation yi la c'est pas encore si parce que fii courant wala lu ne mën na mën na la mbokk yi yëf yaa ngoog gis ngeen ñoo ko gisandoo sëñ bi euh, est-ce que mën nga ñoo revenir encore fi ngay liggéeyee. waaw c'est très difficile pour ma situation bi la. waaw mais fi ngay liggéeyee. agent nga. alors euh, tuuti rek nga daal ñuy euh, décrire li nga xam ne tamit moom mooy film bi ba xale yi ñëwee.

li moy nekkoon lo xamné mom lañ doon indil euh, fi nga xamné moy mooy fii parce que nous, ñu ko département bi fofu nga xamné informations, rek information ñu dekk leen ko mbokk yi si li nga tamit euh, plateforme